de waa dañ lay révoquer ci mairie de Dakar mairie de Dakar fa laay daanelee wax naa leen bàyyi leen di catu mairie de Dakar bàyyi leen di ko catu. Naby Vision. Euh, ci mairie de Dakar fa laay dafa am ay nit ñuy fooyee seen xel. ñoom ni ñu ko gisee tey mooy comme jaay nañ ko doole ci assemblée nationale jàll na dañ koy jaayaat doole fii ci mairie Dakar fokk ci mairie bi ci ay loxo. sànq ndeysaan maa ngi taxaw su ma yaay di ma ne waaw man bëgguma xam lu xew maa ngi dem jëli su ma yaay maa ngi jaay xaw ma lan ma ne ko yaay booy <laughs> ma ne ko wax dëgg yàlla nag man yoruma 25 millions waaw xaw ma nag nu muy demee nag wante. gis nga yow waxuma la. jaay ay ordre waaye seen këyitu kër sax di ngeen ko jaay justice pour Ndiaga Diouf Barthélémy jazz, da ngaa nekkoon ci réew mi di jaay réeware ak arrogant te loolu yëpp nag day jeex ndax jamono ji force restera à la loi xam nga sa poste député ñàkk nga ko kii bu yoon defee liggéeyam ci moom mairie bi daf ko war a ñàkk ne mérite pas pour diriger un maire tu n'es pas un maire Barthélémy jaz tu n'es pas un personne bien tu n'es pas bien toi yaa ngi dégg ngay def conférence de presse ak nga teg ay rajo ci yem boo neexee ne ma nga luye ji rajo jàkka ji wala lu rajo église ba nga noddu téerewulaa mos kaso bakkan gën ta foor bakkan munoo fee nekk jamonoy Ablaye Wade yor sa pistolet di tiire ba tëre ci kaw Njaga Juuf Njaga Juuf dafa am ay waajur faweem yaakaar ko doo ko duñ ko téye nag ray ko pare affaire bi niil dossier bi du niil dossier bi nga Njaga Juuf bi du niil Barthélémy Dias dinaa rien dit dinaa rien ay wax yu bari rek nga ñu indil xamoo loo war a wax sànneel bu gudd bii di mel ne autour à péage. Naby Vision. saytaane nga waaw kii yàlla da koo bind rek def ko mu mel ni mu mel nii moom rek a mel nii ci àdduna. du sénégalais enfant important la dëkkul ci réew mi du sénégalais étranger la dañoo rax wóor na yàlla gars yi xam nañ li may wax kii du sénégalais voilà mairie boobu. du sa place wóor na yàlla du place am. alaykum Barthé ñu ne ñu lay laaj ku ray nit ta tay ko lan moy àtte lan la ci yoon wax ak mom place am ci biti la wala ci bir delo nañ la laaj nga def sa ñaawteef ray doomu jambur mom dee eh salam alaykum maa ngi di beug di len ziaré <laughs> man article yi article article article yi war nañ ko xolal artikel iwan ko xolat eh, artikel ay ay eh, artikel ay douze xawma dix quatorze xawma lan lan war nañ ko xolat man article yaa ngi bëgg a rey baat la bon artikel ñu ngi koy Bat a rey coono coono yëpp article yi ñoo koy dóor baat sonko laalu ko jomaay laalu ko moom baat gars dañ ko bàyyi yi rek yi koy Artikel kan bilang sampai saya mom ban artikel encore. Nabi Vision. mais Barth kon artikel article kau dañ koy bàyyi rek article di ko nok moom article yi mooy nokk Barth Yurin Dia kau koy dóor article Allah koy bëgg rek mu nekk. Olof solai lu mu mos a wax dëgg la barki Rasulaay Olof Ndiaye lu Water pitch a wax dëgg la jas yang woon picc mi ci loxoy gone yi picc mi mi loxoy gone man de wóor nañ yàlla ku noonu ma àdduna dina doxa doxo doxa doxa dox ba mairie Dakar pour Barthélémy Dias yendu fa wala mu fanaan day dépendre ci sama carte électeur man non du ma ko gëm gars yi yëg ngeen ne Barthélémy Dias bépp citoyen buy voté dakaar nga xam ne mairie Dakar concerné na la soo déposé recours ci moom ci préfecture bu neexee yàlla ak yonante ba Barthélémy Dias day tëb dootul nekk maire Dakar sama gaay yi partagé leen lii mu yaatu yi nañ dem déposé évoqué leen article yi ngeen war a évoqué ngeen dem déposé Barthélémy Dias tëb leen rek moom métti li ma ko bëgg a bind mais ku déposé wul yor nga Ousmane Sonko àq picc mi ci loxoy gone yi wartaree picc mi ci taal bi te ku jéggeegul ba mu jeex mais seetaan naa le plus grand cancre du Sénégal bala maa dee nag Barthélemy Dias naan sama baat ca kaw Sonko dina xam ne ay ndaanaan la ko seex yow yaa fi woote woon ni Sonko dina la suul baa nga suul ko nañ xool nag kan moo ciy suul moroomam conseil bi ma lay jox mooy nga bàyyi foo toog di utiliser man booy Dakar laa ñun ay kaw-kaw lañ Sonko kaw-kaw la te tey moo la tereel nelaw gars yi Barthélemy jox nañu information de nee na ceeb yokku na mburu yokku na ma ne ko ANSD kaay wax ñu yow kaay leer Barth nag fi mu toll dafa xam na ne day perte maire Dakar na affaire u Ndiaga Diouf mais délit mané ko yow waxuma la crime wala délit sax mais yow assassin nga ci moom yow Barthélemy Dias da nga wara xamni ti appartient au passé yow sur 1223 bureaux de vote à Dakar ben nga ci gagné kon da nga wara xamni wa Dakar dañu la won ginnaw maire bi nak di ñu ko jël par A par Z gaay bu nonu weesoo képp ko xamanteni ni sa électeur Dakar mo ci nek am nga droit pour saisir le préfet pour ñu refe ko Barthélemy Dias fi nga xamanteni moy maire de Dakar gaay bu len raté lolu yeen ñepp na ngeen ko saisir ñi jëlé ko fi nga xamanteni moy maire de Dakar parce que du capital bi ñu ko jël diko jox ab criminel kii di Barthélemy Diaz daaw naga ni bañoon na ñàkk mairie moo taxoon mu trahir kii di Ousmane Sonko daal di commencé di soutenir Macky Sall pour yombal élimination usmaan Sonko tey jii nag pouvoir boobu kii di usmaan Sonko moo ko yore at Bassirou Diomaye Faye maanaam la mu doon ragal ba tax mu wor tey jii loolu lépp ci loxo ñaar ñi la nekk ku dégg tey jii muy wax di nga xam ne kii il n'est liñ naan yàlla ay ci traite nabi Vision xamoon nga ne sa bés bii di nga ko am suñu njiit yi woote jub jubal jubbanti duñu jéggi yoon li lay daaneel yaa ko teg sa bopp Battle Diaz la loyauté est une valeur précieuse qui reflète la fidélité et l'engagement waaye les traîtres subiront toujours les mêmes effets qu'ils ont voulu infliger à autrui La sàngara dama ko mujjee yërëm Laye Sangaré moo ngi ñàkk xepp <laughs> oh, lii yàlla rek ko mën barki Seydina Mouhamed yow yaa waxoon keroog ci élection législative bi nga ne Ousmane Sonko dina ma suul politiquement wala ma suul ko politiquement te li gën a neex ci affaire yi amul kenn kuy taxaw ne injustice la comme ni Macky Sall defoon Ousmane Sonko di créer say article di dëpp loi yi loo xam ne loi boo xam ne dafay nekkoon depuis mille cent soixante boobu juddoo goo sax moom lañ la génneel tey teg ko ci kaw table ji rek nga génn def conférence de presse wor baaxut Barthélémy Dias da ngay bandi bandilu di jaay maanaam gangster politique billaay Seydina Ousmane Sonko di seen morom moo leen dàq politique fopp moo la fal moo lay folli ginnaaw yàlla te amul kenn kuy taxaw génn teg ci table ñu injustice la loi ay way way waay Ngagne Demba Touré waji day dafa nax 2017 ak 2022 dafa xaw a soree nag mal Barthélemy lii num ko réere waay ay waay Vision ah! jaas jaas dangaa songu ñu mëna xex jas ñi nga songu neen maanaam dana la sul ma nga suul dañ ko man kin la tegal de mooy caat mi caat caat caatum Pastef eh, gone Pastef ki la tontu ba ku leen ku leen ak ku leen déglu yéen ñaar ak honnêteté waxuma nga déglu nga par de waaye ak honnêteté dana xam ne la yëkkati na la ba ca kaw daane la ci suuf kooku caatum caatum Pastef la caat moo ci gën a ndaw allahu akbar ba ah! ñàkk sama ndey tey sama xol dafa sedd ndax ku xool tey conférence de presse bi Barthélemy bi ah looy gis ci kanamam tiitaange ak jàq di woote wàllu instant yi foofu la toll moo tax dañ ne ku wor ren ba déwén te gisoolu toll noonu ñoo dañ la koy jiiñ Barthélemy Dias da ngaa wor sa nawle tey boo laajee le président Ousmane Sonko lu gën a metti sa àdduna mooy wor gi nga ko wor ba pare nag yàlla ñëw ànd ak moom beneen bi ci topp il faut ngeen essayer bàyyi ay fen bu leen jàpp ne ay fen ak ay manipulation mooy tax sénégalais yi déglu leen loolu instant dañ ko allergie bàyyi leen loolu daf leen di gën a yàqal saako ceeb na jar cinquante mille suñu yoon nekku ci bu dee diwlin na jar cent suñu yoon nekku ci l'essentiel ñi ñu bëggoon a teg ci bopp réew mi teg na ci le président Bassirou Diomaye Faye le premier ministre Ousmane Sonko ak mbollem ku ñu ci gouvernement bi doy patriote di beral bu Dakar. Vision. di len wax ni yeen ñi nga xamni Dakar élection législative 2022 yi passé képp Dakar. am nga droit bind lettre wala bind genre yoole bind ko préfet bu Dakar ak cour suprême ngir ñu jële fi xaju balcon lu samay wax waxi Daouda Mine la nee na cent soixante-dix-sept may na bépp moo xam militant nga moo xam sympathisant nga moo xam boo ko fenn mais jël nga sa carte yee wooteel yeewi askan wi Dakar pour mairie Dakar élection législative 2022 yi passé am nga sañ-sañu bind yëgal ni préfet kii jiita maire Dakar danga ko condamné ba mu da ba mu nekkutu ci fiis kon amul droit continuer maire bi bu boobaa préfet du koy jël rajee ko mu jóge fi wala nga def ko cour suprême mais nag lu kenn man ñaar ko ko dàq li lay war a sool yéen GPS bu Dakar def leen groupe bu matee mille baax na yéen mille personnes ngeen déposé ko euh, préfet bu Dakar déposé ko cour suprême pour ñu jëlee fi xaaju balcon bi baaxul ci àll baaxul ci kër te wax ju ñaaw ju ne wax nañu ko jëf ju ñaaw ju ne jëf nañu ko soriwul bërki démb Ndar mbakk Jurbel Dakar ba pare mu di ko ndamoo naan ku ñëw moo si faayal am na wax joo xam ne waxoon na ko ne Paatu May Muna Ndour Faye man du ma ci jaaral ndax wax ji ñaaw la bi ci des nee na ne woon Ousmane Sonko dana ma suul politique wala ma suul ko moom na dugg na ci kàmb Pierre baa ngi nii suuf saa ngi nii. Naby Vision. ñoo ci des kon yéen waa ZIPES Dakar seen liggéey la man wootewuma Dakar mënuma koo def ñi woote Kaolack mënuñu koo def ñi woote Touba mënuñu koo def bu doon moom kon boo ko daaw min la jóg mais moom ñoom mënuñu ko parce que wotewuñ Dakar kon yéen GPS ñi nekk Dakar lii seen liggéey la méttiwul maître Ngagne Demba Touré dajaleel groupe bi ngeen déposé ko ngeen jox ko préfet ak cour suprême max bi fee ñu jàll ci leneen parce que guitare mënut a ànd ak wokkatu jërë ngeen jëf. sama gars yi war naa ne bu baax di ñëw ci kaa Barthélémy Dias parce que dégg naa baat Lamine Dias tey day def conférence de presse xamagu ma la fa war a wax ak lu waral conférence de presse mais njort naa ne ci affaire gàddu kooram boobu ñu ne kooku ñu ne gàddu kooram la te dafa faaru ci prison bi xam naa cas boobu moo tax muy def conférence de presse parce que moom dafa ñaa kay état bi fi nekk ñoo sàkkal pexe kooku pour rey ko mais dama leen bëgg a xamal ne état bi amul benn intérêt ci rey gàddu bat la Lamine Dias parce que kooku. dañ ko waroon àtte teg ko ay daan yàlla na ko yàlla yërëm xaar ko àjjana firdawsi ndax nit moom bu faatoo boo mënta wax ci am lu rafet nga noppi mais kàddu yi ñaaw waroo ko cay teg ñu ngi koy jaale ay mbokkam bu baax nag di ko jaale réew bi yëpp mais kooku dégg nañ ci ay ci ay ci ay rumeur ñu bari nee nañ kooku nekkul woon gàddu gàddu corps Barthélémy Dias du ma ne nag ab nerveem la woon parce que damay respecté ki dem mais ak lu ci mënti xew dama leen ne naa bi Vision. li ci bënti xew dama leen bëgg a xamal ne Barthélémy Dias il risque de perdre maire de Dakar pour ngeen xam loolu Barthélémy Dias mi ngi risque bu baax a baax a baax pour perdre maire de Dakar parce que la Barthélémy Dias bokkam ci élection législative yi passé sax ministre de l'intérieur la neex bien vrai que conseil constitutionnel ñooy validé candidature yi mais ministre de l'intérieur bis bu bindoon bu bindoon fooy yónnee conseil constitutionnel candidature Barthélémy Dias waxuma la jàll. mais du doon sax candidat xam naa nag gars yi stratégie bi tax li tax ñu bàyyi ko mu dem déposé candidat parce que gars yi PS lañ doon def xam nañ ne Barthélémy Dias mënta doon député waaw sàmm sa xam nañ ne Barthélémy Dias mënta doon député mais nañ ko jiital ci liste bi pour que bu ko gars yi arrêté bu ko gars yi annulé candidature ñu am fu ñu joxandu pour pour mu waay ne ñii dañoo ragal Barthélémy Dias moo tax di muy moo tax ñu éliminé ko ci élection yi ñii dañoo nii nii nii am fuñ taxaw am fuñ xeex amna naa loola tax état bi bañ leen fekk ci pièce bobu bayyi bat la min jass mu jall ak lu mu jall jall ensemble mom du fa tok dañ ko fay jé parce que dañ ko yaraje lolou mom léron nako mais dañ doon chercher état bi pour dugal ci ben pièce pour ko ñu mëne état bi ño téré bat la min jass dem élection législative yi loolu tax état bi bañ dugg ci pièce bobu bayyi ko mu dem ci jàmm ak salam ñu gagné ko légui nag ñu door koo raje ci poste député mais poste de député bu len yaakaar poste de député bi rek la perte naam mom la pertagul mais à tout moment à tout moment laa leen wax man na perte poste de maire de Dakar day dess rek ci président Bassirou Diomaye fay parce que Barthélemy Dias Barthélemy Dias yone dafa teggo ci kawam. Naby Vision. te lepp lo xamanteni ni bepp pièce bo xamanteni ni war dañ ko mëna tek pour Barthélemy Dias jóge ci maire de Dakar mi ngi ci loxé état bi tay bu neexoon Bassirou Diomaye fay tay tay tay Barthélemy Dias du fanaan maire de Dakar. du fanaanoon ndombal tànk maire de Dakar à tout mën nañoo nangu maire de Dakar mi ngi ci ay risque bu baax a baax nag pour perte maire Dakar pour wax leen rek bu ngeen xëyee xëy dégg ne Barthélémy jaas nangu nañ maire de Dakar bi ci moom bu mu leen bett te ngeen xam ne lu waroon a am la parce que yoon tamit yoon rek lu mën a doon yoon ni mu wax moom dañ koy appliquer bu ko gars yi appliquer tamit kenn du leen ci xeex gars yi ñu xamee ko noonu Barthélémy Dias il risque de perdre maire de Dakar gars yi ñu xamee ko doon jaajëf gars yi. Ndakunda la doomu Saloum bi l'enfant terrible de Ndiaye Kounda l'ambassadeur de Saloum patriote yi nuyu na leen patriotiquement ñaanal leen jàmm sàkku ci lu baax non hypocrite yi dafa bëri ci réew mi tappale yi dafa bëri ci réew mi ba yegg ci loolu su ma gisee ay nenn ci nit di tappale ci mbirum radiation de Barthélémy Dias di ko jiiñ gouvernement bi naan ñoo ko doon défendre démb tey ñu ñëw di ko radier je me dis Sénégal ban réew lañu ñu dama di Sénégal dañu bëgg ñun ñu fi nekkee wala gouvernement bi di fi nekkee li fi Macky Sall doon nekkee di salfañé li nga xam moy règlement intérieur yi di salfaañe li nga xam ne constitution bi di salfaañe li nga xam ne droit non non loolu du am bu yeboo kenn ku ne ŋàbb sa làmmañ wax lu la neex gis nañ fi ay activistes gis nañ fi ay nit ñoo xam ni bi réew mi nekkee bi ñi dal ci kaw gouvernement bi kenn waxu ci ba ñuy dal ci kaw Ousmane Sonko ci campagne. Naby Vision mais dès l'instant ñu li ma doon wax rek saa yoo laale opposition bi ñoom ñu génn kon ça dit ñom dañuy confirmer ce sont des opposants ku mu neex na waxal lu la neex mais réew mi moom duñ fi nekké li fi Macky Sall nekkee woon. gouvernement bi du fi nekk li fi Macky Sall nekkee woon salfaañi ak ak yelleef doomu aadama salfaañi li nga xam ne ni moom mooy institution yi salfaañi li nga xam ne moom mooy règlement intérieur bu assemblée nationale salfaañi constitution bi salfaañi droit pénal yi lépp loo xam ne ni luy doxal réew mi loolu gouvernement bi du ci nekk ñii dañuy nekk ci légalité li yàlla li li li waa wax ci la ñu nekk Barthélémy Dias dans des règles normales warutoon bokk ci élection législative yi moom ci boppam ay ñooñam ay Khalifa Sall ñoom xam nañ ko dañ condamné de meurtre ku rey nit nag bu ñu la tëjee dañ la wara a ci lisi lool du du du inventé du lu ñuy inventé du lu ñuy lu ñuy lu créé lu fekk la mu nekk ci règlement intérieur bu assemblée nationale nekk ci constitution bi légui buñu appliquer le règlement intérieur de l'Assemblée nationale appliquer la la la constitution de ce pays les quel est le problème maintenant le président de l'Assemblée nationale deful les appliquer les règles appliquer les may képp ku fi taxaw na dañ jaay dañ ko jaay nga nga ak On a doon tappalekan nga nga gouvernement bi rajee ko Macky Sall ak Wade ak ndax dossier ma nga déparé ci Ablaye Wade terminé ci Macky ci lañ ko condamné définitivement kon ku ñu condamné définitivement ci wàllu mbër dañ laa war a génne ci liste yi waratoo bokk ci élection waratoo bokk ci benn liste. Naby Vision ni plus éligible sa carte sa case judiciaire yàqu na. léegi nag ñenn ñi bëgg langaamu naan Ousmane Sonko dañ ko condamné nangam nangam Ousmane Sonko condamné ko par meurtre. Macky Sall da doon daw di laqatu par génnewaale ko ci port bi Macky Sall ci boppam moo doon daw di nëbb boppam indi loi d'amnistie génnewaale Ousmane Sonko. tappale yi dafa bari caaxaan baaxul ku mu neex na waxal lu la neex mais jaas Dias Macky Sall moo ko ràjjee ay Tall Sall moo ko waroon a génne ci li ci depuis 1900 nangam dans des dans des règles de l'art Barthélemy Dias wartoon bokk sax ci élection présidentielle wartoon woote sax ci élection présidentielle waxuma laa élection législative caaxaan baaxul tappale baaxul dee leen wax dëgg di nekk ci dëgg di dox dëgg bañ gouvernement bi bu len taxaw sosal ay gouvernement bu len taxaw di sosal gouvernement bi bu len taxaw tok di salfaañi ak ak yelef do ma adam mu len taxaw di salfaañi di deug constitution bi dum len nexé neexee len tax di deug eh, li nga xam ne moom moo eh, le règlement intérieur de l'assemblée nationale mais le président de l'assemblée nationale dañ ka saisir le ministre de la justice moko saisir nako gennel ma ki ci assemblée bi mais quel est le problème léegi li nga bëgg du appliquer le règlement intérieur de l'assemblée nationale génne ko ci lisi légui lan moy problème bi caaxaan baaxul tappalekat yi ñoo bari ci réew mi waaw salam salam salam jantal bu sonko la nabi vision mo ñoo ci barthélemy toy jazz barthélemy fi sa morom new fi so bëggé morom da nga koy wuti xam lu mu lay chaque mo nek ci yow da nga bëgg ngand ngandalu di bëgg géree géreelu ha, di jaay affaire ouragan di dof doflu gis nga Barthélémy Dias ñi la ëpp fit a fi nekk ñoo xam ne dañ day di dund billaahi dañ day ba pare di dund ñoo fi ne yaa may dégg da nga war a yem te yeb toog sa place yow boo defee sa conférence de presse naan non yow doo quitté mairie de Dakar da nga wax la neex bis buñ la fekkee bis la fekkee mairie de Dakar dana xam ndax di ngay quitté wala doo quitté yow di nga quitté mairie de Dakar ci nii wala ñu ko ci nee loolu da ko def sa bopp bi sa conférence de presse nga andal fay len ñu ne di di mais yow xam nga ah, en conscience de Dakar xam nga de Dakar fa député de euh, l'Assemblée nationale ngay Nous non man la ci ci bi nga leneen encore yow Nous ma mi yow da ngay jaar affaire traître réew mi di nga xam ne ne xolal am na borom fii lu fi waaye di jaay am na ku ko ëppale téeméeri yoon yow loolu nga xamul yow da nga jàpp ñii nan laa bàyyi xel kenn bàyyiwu la xel yow doo dërëm biir Sénégal yow doo kenn yow yaasa bi doo si soble doo jën doo yàpp génnu béy nga nëbboo tàddaa koo weñ Barthélémy Dias may ñu suñuy jàmm da may dégg Naby Vision yow sa mairie sa bureau de vote sax mënoo fa gañe yow fi nga dëkk sax mënoo fa gañe yow nga xam ne kenn bugg la yow Sénégal kenn bugg la xanaa say mbokk say mbokk ñoo la bëgg say mbokk yow à part say mbokk kenn bugg la buñ la bëggoon sa bureau de vote da fay gañe sa koñ da fay gañe mais koñ bi nga dëkk mënoo fa gañe sa bureau de vote fa gañe waa kon fan nga mën a gañe kon lan lan nga mën a kii yow boo jëlee mairie dakaar sante ko Ousmane Sonko yow boo demee ba jël mairie mairie de Dakar sante ko Ousmane boobu yaa ngi làq ci ginnaaw Ousmane Sonko ba jël mairie bi nga taxaw tey def affaire au bi di wax ak Sonko naan c'est que c'est-à-dire c'est que c'est-à-dire te bu Ousmane Sonko di taxaw naan mairie bii Barthélémy jaas moo koy jiite yaa ngi taxaw ci wetam ci wetu Ousmane Sonko ndax boobu yaa ngi làq ci moom bëgg mu jàppale la nga jël mairie de Dakar même bi nga nekkee mairie de Dakar sax am na benn instant euh, nu mu tëddi euh, saa waay bëgg a nangu bëgg a nangu mairie de Dakar bi Macky Sall boobu tamit saa waay ngi taxaw euh, nu mu tëddi Sonko jàppale la. Macky Sall bu bëgg nangu maire Dakar si Barthélemy Diaz mais duñ ko sétane duñ ko nangu ah nga wara santé sante Ousmane Sonko tay nga taxaw nga naan da ngay da ngay ngay ngay diirante mbag ak Ousmane Sonko Ousmane Sonko da di sama rom Nabi Vision. yow bayen du magis gis la ngay euh, Bilal Bilal Diatta yow Bilal Diatta rek du sama rom waxuma la Ousmane Sonko Bilal Diatta bu keur massa du sama rom yow Bilal Diatta lu mu def defoko Bilal Diatta lu mu def defoo ko Bilal Diatta Kër massa ñëpp ko jox nopp Bilal Diatta dafa Bilal Diatta dafa defal keur massa liggey keur massa bu wa keur massa yeb jox ko nopp Bilal Diatta amul fu muy romb ñu naan cam wala ni wala na fu Bilal Diatta taxaw jeunes ñing ci wetam jeni bëgg ko mom Bilal Bilal du sama te yag yag nak na ci baye xel yag yag lum la na ci baye xel de yag yag Biral jatt dina jël mairie de Dakar lol mom bi yow nga def ko sa xel yow lemi jazz yag yag Biral jatt du som morom ci ni du som morom ci ne te mairie mairie bi mairie de Dakar noko jël inshallah ci carton yalla yàlla. Eh, salaamaaleykum Bat a jazz jazz nekay tay baye anki yaa ngi ci ba ken njaboot nak sample num def. mbaa mi ngi ci jàmm rek ba bàtt am nga deux yaa ngi xataraayu de wallaahi aji yaa ngi xataraayu de bàtt finalement mujj naa la yërëm mu ne yàlla am naa ñëwantal ci yow. eh bàtt bàtt jamono yële ci ginnaaw yaa ngi fàttali ko mu nga toogee tool sa sabadoor bu gudd ba jàkkaarloo gone gi njaay nga naan ko Ousmane Sonko na muñ. bu ko defee xalifa bokk benn président 2029 Ousmane mën a bokk ñëpp bokk finalement loolu da laa lay xewal xanaa nga muñ nag lii yëpp defoon nañ ko Ousmane Sonko rajo woon nañ ko jàppoon nañ ay gonam tëj tey jii moo fal kii ñuy wax euh, Bassirou Diomaye Faye yow nag dama lay xelal nga muñ feeg cinquante di nga mën a def ni bé Ousmane def maanaam nga jiital élément baat wala nga xool koo gis ci gone yi ko ko ci ñu ngay yi ngay àndal xanaa kenn dina ci futteeku wuti ay xam-xam ki diplôme de mën a doon président te yow it bu ma doon xewal xelal bàcc baat mooy nga dem wuti ay diplôme defaraat sa CV déposer ci entreprise yi nekk ci réew mi da nga xam ne politique du liggéey te danga koo sax mënut nag enlayage bi dama la ko nëbb man sawaay daa duma la jay ma ne baat dangaa monte politique amoo amoo facha wax Naby Vision baat amoo éloquence amoo pertinence ni élégance xam nga donc politique moom wax dëgg yàlla du sa métier moom bàyyi ko nga dem wuti leneen loo def gone yi ay eh, unipat kook yëpp ñu ngi recruter fan yi demal foofa ñu jël la stade yee stade bee ñu koy am na ñu bëgg it ay garde corps ne gouvernement bu gouvernement bu bees bi ñu nemi am nañu ci bëgg ay garde de corps ba jek nga ci garde de corps de wallahi azim jek nga ci mom <laughs> wallahi azim way nak ñu né ñaanal nga réussir nga xam li la yalla may ak lim la xagn way nek un homme politique bu am baaj politique bu ñepp di top nga wax ñepp deglu la moom nekkut ceew te gëw na nek dina nekk da nga romb fa ko waroon defee yooyu ñi juddoo ci parti socialiste yàlla di leen nattoo ngeen def comme ni daan def travail force travail force ja xale bu juddoogul amagul benn xam-xam nga koy liggéeyloo noonu la leen socialiste yi def j'utilise leen di leen xeexloo di leen saagaloo ba tey jii mu ancré wu seen deret moo doon yow nga delluwaat ginnaaw wuti métier wuti ay diplôme am nga xaalis fayal ñu wutal la ay diplôme nga wut ci entreprise di jàng caissier accueil ah, acteur informaticien lu ne mën nga koo doon xam naa waaw góor <laughs> da nga gaaw abal ñu suñu mairie dégg nga waaw kumba waaw góor wallaay asim Barthélemy Dias gone gi moo xaramu rek naay Barthélemy Dias li gën a yéeme ci wax ji nag Naby Vision mooy kane yow président Bassirou Diomaye Faye nga adressé président Ousmane Sonko ñoom nga waxal nest pas Mbappé moo la tontu ki gën a nekk xale ci biir Pastef bokk na ci ñi gën a nekk xale ngañ jëmbature Mbappé moo la tontu de away affaire euh, sen wajjo waajooju nonu nga xamantene dafa ñak bakkanam yalla ko yalla yeeram li nga ci wax lepp yi deg nañu ko <laughs> ne nga jamono biñ koy arrêté feebarul et après nit dana sujjóot ci sidiadam di julli fargaañu bakkan ak waraw dal ñoo ken xamul fu mi dagee nga ne du mor naturel après kon yow yaay xam ban genre mor la kon yeeram mooy dawlu bi après nga ne président ma eh, président yi mos jaar Afrique yi président Afrique yépp balé ma message bobu président Afrique yépp président yi gëna am doole ci monde bi kenn du ci woote ay seet seetal président Amérique ak yeneen dëkk yépp yaa wax de parce que ñooñu gëmuñu yàlla gëmuñu yàlla parce que an nasafatu min al iman set dafa bokk ci ngëm yàlla da ngay sangu ba set jàpp ba set sol sa yére yu set defar sa kër ba mu set bale say mbedd ba mu set sa xol bi nga laabal ko ba mu set set moom daa mënul ñàkk même poussière bu nekkee ci sa dënn bi meewu set ngay naan pour mu génn nu mu gën a gaaw Naby Vision wan bi